أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اغفر له والحمه موسى دون نوبي di جوي jooy ndax xale bu baax la avant muy dem France fële di nek ci service médical bi ci ndar la ko jitt jëkkee woon ndax papam dafa amee woon boutique bu mag bo xamni ni colon bi daf ko fi bàyyi woon muy Citec

gouvernement français def nañ sax citoyen d'honneur donc njabotam fi mu en charge manam bant yi mu ak ak ndax way bu ngi ba frères aussi ngi fi ngi gouvernement sénégalais bi nga le président Macky Sall a envoyé son ministre et maire de Saint-Louis avec ses collaborateurs

rendre nañ ko ko fii ci aéroport bi ñu ngi ñaan kon Moussa suufu caaka Ndiaye yàlla na ko jik yàlla xare ka ci àjjana yu gën a màgg wasalaamualeykum wa rahmatullah maanaam euh, accueillir nga koor bi nga xam ni mooy koor Moussa Dieng bi nga xam dafa faatu fële ci tugal ci France ci liggéeyam da doon liggéey xëy dem di liggéey li dal ko ci mu nekk lu metti loo xam ni maanaam njaboot bi en tout cas diis na ci ñoom man ma ñëw fi d'abord en tant que ministre de la République indi njàllu président de la République waye aussi en tant que maire de la commune de Saint-Louis bi nga xamne dama ñëw partager ak ñom manam naqar bi ak tis bi mu nekk lu metti ñu ñëw dëfal leen masawu leen leen jot leen ak njaalu doomu ndar yëpp euh, toute la ville de Saint-Louis ak aussi njaalu Sénégal ci li nga xamni dal na njabotam parce que xam nañ da doon liggéey ñëpp gis na da doon liggéey ah lu fay dal dal ko ci li nak euh, en tout cas autorité yi ñu koy suivre bu baax baax parce que gis nañu manam gouvernement France amna taxaway ci mom rendre nañ ko hommage euh, ministre délégué bi nga xam mo nek nekk ci wetu ministre amee la santé et la solidarité rendre na ko hommage président Macron rendre na ko hommage donc vraiment ñi ngi remercier en tout cas le gouvernement français ci taxaway bi nga xamné ne am nañ ko ci ci mom ak li ko dal loolu mom dama don bëgg tout simplement en tout cas jotali loolu massaw famille bi disposition yëpp wa kër gi jël nañ ko pour que corps bi bu jógee fi ci aéroport bu neexee yalla ñu yobbu ko ndar jëbël ko borom.